والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أذوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التيجاني قطب الأقطاب تاج العارفين وعلى آله وتلاميذه waa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi santaat yàlla borom bi subhanahu wa taala di ko gërëm bu baax xam fan yi moom moom gërëm yàlla rek moo war tàng na jër waaye ndeysaan jaam bi lu métti métti moom li ko war rek mooy sant hmm, bu neexee mu sant bu méttee mu sant kon nañ sant rek waaw nu mu gën a tàngee gën a baax waaw tabaarakallaa yomboon na de bu njëkk fan yii nag falilahi alhamdu mhm. ay sant bu baax a baax gërëm ko euh, ndeysaan am nu mbokk muy muy wax ne mu ne waaw maam coono moom bu demee nag ba bëgg laa xamloo wala bëgg laa def noonu nangam léegi ndax dagan na dog wala <laughs> islam du lor kenn waaw cori bu jéggee dayoo rek islam ma na nga dagg hmm. boo wéree fay hmm. waaw waaw coono nag bu la koor bu la nar a yóbbu ngay xëm ñuy xëmmale ko yóbbu hôpital soo islam mën na nga dagg nag <laughs> dëgg dëgg <laughs> mu ne ñoom ñaaroo ko doon werante kenn dagan na kenn daganut waaye loolu moom dagan na nag hmm. islam loolu luwul kenn am na koo xam ne sax bu fekkee ne biiram ba ñemewul xiif bu xiifee balaa bu wooree balaa ngoon mu loru islam da koy dagguloo mhm. bu ko defee moom muy lele ateem loolu doon ndax ate feebar lay yore bu ko defee muy lele bu fekkee nag loola wér na nag moom bu ko defee mu fay waxuma nag nag nag tappalekat ya nag ñi nga xam ne dañoo feebar te loolu feebar la ci ñoom waaw wala yàlla dogal bés bi moom tey dafa tàng ba yow mënatu ko supporter su waa islam ma ne la nga na nga dagg nga lim boo paree nga fay mhm. suuratul muminin muminuun mu ne saaru jullit ñi saar baa ngi wàcc màkka téeméeri aaya la ak fukk ak juróom ñeent ñi ne téeméer ak fukk juróom ñett eh, mu ne bismillahi rahmaani rahim dañu xawa tal dina té lu bari té yon xamna né hmm tafsir tafsir bëss bu tang lañ koy def hmm do do am sharaa yu bari بسم الله الرحمن الرحيم بورنا قد افلح دغ دغ تخنا المؤمنون جوليت ني الذين نيغا خامني خاشعهم نيوم خاشعون ويترخلو لاني في صلاتهم تي سينو جوليه والذين غاغا خامني نيوم هم نيوم معرضون واي دموي لاي عن اللغو تي تياخان والذين غاغا خامني نيوم هم نيوم فاعلون واي جخي لاي للزكاه نيال ازكا والذين غاغا خامني هم نيوم حافظون واي وتو لاي لفروجيم نيال سين بي بارو نديرو حرام الا على ازواجهم ndare bo seni soxna aw ma malakat wala la mom nako aymanuhum sen mooy jaam yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom fa innahum naka ñoom daal xayru malumin nekkuñ ñu ñu yedd bi maanaam ànd ak sa soxna loolu dara nekku ci ànd ak jaam bi nga xam ne yaa ko moom dara nekku ci kenn du la yedd nag fa man ibtaxa wara azalika ah ku sàkku nag leneen lu nekk ci gannaaw yooyu nag bi maanaa bi maanaa dem di ànd jigéen boo xam ne nekkul sa soxna nekkul sa jaam wala fooyee sa bopp ci sa loxo ba man yu génn ci mu ne ñooñu de fa ulaayka humul aaduun ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy jalgati bi maanaa ñoom ñooy def li nga xam ne loola daganut istimna bil yadi mooy nit kuy fooye boppam ci loxo ba man yoom génn loola dafa xaraam ci dégginu imaam Malik waaye dégginu imaam Shafii ak dégginu abi xanifa amma bu fekkee ne ahmad ibnu hanbal moom dafa ne fooye sabab sa loxo mën na dagan ci ñetti charte bu ci njëkk mooy mu ragal ne moom bu ko defut dee njaalo ñaareel ba euh, wala boog mu ñàkk a am euh, can pour dem takku gor wala mu ñàkk am lu mu jëndee jaam te tamit da koy fekk ci loxoom la koy def waaye bu fekkee ne jaambur moo ko defal suba dee xaram jaam bi nag moo xam góor la moo xam jigéen waaye bu fekkee moom loxo boppam la te daa fekkee amul can ak mu ragal njaalo mu ne ñett yooyu bu fekkee loolu la suba dagan na loolu la Ahmad ibnu Hanbal wax waaye bu fekkee Maalik defa ba bañ yooyu yëpp mu ne bu mu ci doon dafa xaram gis nga ko mooy foofu laay ko mu la aadun walladina gaa yi nga xam ne hum ñoom raawuna waaye sàmm lañ li amaanaatihim ñel seen ndénkaane ya wa ahdihim ak seen kóllëre ya walladina gaa yi nga xam ne hum ñoom yu xaafisun dañuy wattu ala salawaatihim seen julli ya ulaayka ñu li gaa ne hum ñoom alwaarisuuna ñooma di waay donn eh, aljanna mooy ñi nga xam ne yarisuuna dinañ donn alfirdaws aljanay firdaws te hum ñoom xaaliduuna waay sax lañ fiihaa ci aljana jooju walaqad xalaqnaa deug deug bind nañ al insana doomu adama min sulalatin ci seggit min tinin ci ban sulal moy nga mer mu ne mbir mu nek nga segg ko la ci la ci gëna bax mu ne kon nit ki man ko bind min sulatin ci seggiti suuf waye min tinin ci ban suma ma top nak euh, ñu def nit koku moy ban bobu nutfatan ñu def ko muy maniyu waaye fi qaraarin eh, ñu def ko ci saxuwaay boo xam ne makkiin bu dëgër la te mooy ruux mu jigéen léegi moom lim ci nam mooy mu ne wala xalaana insaana aadama la ci namu waaye wax naa la ko keroog yow mii la ci namu min sulaalatin kon toqantu man yi boobu mu ngi jógee ci sulaala mooy ci suuf soosu suuf sell soosu waaye ñu jël eh, suuf soosu nag def ko nut fatan ah, waaw loolu de hmm, hmm. donte moom mu ngi wax ne min sulaatin aadama rek la ci nammu léegi nag gannaaw aadama nag kon ku juddooti yaa ngi juddoo ci toqantu ma niyu mhm. waaye waaye ba tey jii min sulaatin eh, min tiinin summa jaalnaahu nutfatan fii qararin makin summa xalaq na nutfata topp ñu bind toqantu ma niyu boobu alaqatan muy lumbu deret fa xalaq naa ñu bind ala alaqal lu mu deret boobu mudxatan mu nekk di suuxu yàpp fa xalaq naa ñu bind al mudxa suuxu yàpp woowu idaama ñu def sa yax fa kachaw naa ñu woddee al idaama yax boobu laxman yàpp summa anshanaahu topp na ñu bind ko ñun yàlla xalqan aaxar muy beneen mbind moo xam ne beneen beneen mbindeef boo xam ne ànd naag ruux ànd naag yëpp juddu nekk nit fa tabaarakallaahu yàlla barkeel na ahsanul xaaliqiin yàlla mi nga xam ne moo gën a rafet ci li mbind yëpp <clears throat> mooy yàlla ginnaaw bu la defee jaaree foo ci étape yooyu pare mu mu bind nag nga nekk nit ku yem ku rafet xoolal sa mbagg yi dafa yemoo sa doq bi dafa yem tànk yi dañoo yem loxo yi dañoo yem lépp mu defal la ko mu yem moo tax mu ne fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla mi nga xam ne moo gën a rafet bindin summa innakum topp naka yéen baada zalika ginnaaw loolu yëpp nag la ma yitoon fa ngeen di dee de hmm? waaw waaw ha ha ha tabaarakallaahu hmm, hmm. moo tax nit eh, eh, nit tabaarakallaahu état bi ko jaarale dafa dafa dafa dafa doy waar. moo tax nit mooy lépp. waaw waaw wallaay ndeysaan. wa taxsabu annaka jirmun sagiirun wa fiika anta wal aalamu al akbara. mu ne yow yaa ngi foog ne yow jëmm ju ndaw nga. te monde bi yàlla nga ko dëxañ ci sa biir. wa fiika anta wal aalamu al akbar. ne yow yaa ngi xeeb sa bopp. waaye mu ne yow xeebu woo de mu ne yàllaa ngi jël monde bi yëpp dexuñ koy sa biir yow ngay dox ak monde bi di dem kon yow monde bi nga waaye monde boo yëgul nga nag hmm? gisoo ko moo tax bu kenn fooyee boppam nit ndawul de nit lu rëy la lu yàlla fonk la lu yàlla bëgg la lu yàlla gërëm la wala qad karram naa bani aadam hmm? daf la teral teral bi du jow ay jox xaalis ak ngay uti oto ak nanga loolu du teral hmm? waaye façon bi mu la bindee monde bi yëpp mu mu ko ci sa biir nëbbu ko fa denc ko fa loolu mooy wala xad karam naa bani aadam loo foog ne nekkul ci nit rek mu ngi ci biir nit hmm? wa fii kantawa alamul akbar gis nga ko baada dalika la mayituun gannaaw loolu da ngeen ci dee summa innakum topp yawmal qiyamati qiyaamati këla bi dem na dekkal len wala qad khalaqna deug deug bind nañ faqakum sen ko sab'a tariq jurum ñaari asamaan tariq mo jamu tariq mo jurum ñaari yon ndax lan malaaka ñoo fay jaar di mo moo moo ko tariq wa ma kunna naa nekkuñ xaafin di way sàggan anil wal ism binde fi nga xamne ñoo ci su asamaan mu ñun sàgganuñ ba bay asamaan asamaan di wad ci ko binde fi dedet ndax waxnal naa la wa yumsiku وانزلنا نواتي من السماء تي اسمان ما اندخ بقدرين تي كيم بو خامني دولين بقدرين مام تي كيم نامو دوي فاسكناه اندخ في الالي تي واننا نك نون لقادرون واتل نني على ذهب تي دي بي تي ندخ دي بو ني في غني وون دوخ كون يندو باخ تي يين فان شاء الله نصص لكم يين بي تي ندخ جنات اي تول من نخيل تي اي تاندارما وعناب اكيرين لكم يين فيها ci tool yooyu meññit yooyu fawaakiyu ay furne ay ay furwe kasira yu bari wa min ha am na ci loo xam ne taakulun di den koy lekk hmm? wa sajara wa sajaratan maanaam mu génne ci ay garab yoo xam ne taxul dina génne min tuuri sina ci tuuri sina mooy xeer boobu noonu xeer bi nga xam ne moom la yàlla doon waxee yonti yàlla Moussa mu mu génne fa ay garab waaw waaw garab googu ah, tumbitu moom dana sax bi duhni ci diw wa sibiril ak luy cuubal lil aakiliina ñel waay lekk yi mooy rënd ba mu ne garab gi ñu ngi ko tuddee zaytuun ñu ne diwlin maanaam dafa am diwlin day génne diwlin mu ne garab googu yàlla def na ko mu sax ci ndox moomu ba ba pare muy euh, muy def diwlin nga xam ne wa sibiri lil aakilin def lay cuubal yow mii di lekk ceebu diw kay moo moo dàq kese Hmm? gisoo boo ci defee diwlin ni mu koy soppee kon cuub na ko ni mu loolu mooy wasabirin lil aakilin wa inna lakum mu ne nekk na ñeel leen fil araami ci juri kër la ibra ak waar ndax nusqiikum ñu ngi leen di nandal meewam ma mimma fi butuniha la nekk ca biiram ci soow te wala kum ñeel na leen fiiha ci juri kër yooyu manaafiu ay njëriñ kasira yu bari wa min wa taakuluuna da ngeen lekk min haa ci moom de ba pare wa alayha dangeen war ci kawam waalal fulki ak ci ko gal tuhmaluna ay wa tuhmalun defna yen defna yen len yéen leen alayha ci kaw gëlëm yooyu waaye waalal fulki ak ci ko gal ya wala xad arsalna buur deug deug yoni won nañ nuhan yonti yàlla nuh ila qawmihi jëm ci anjitam fa qaala qawmi yen sumay nit ubudullaaha jaamu leen yàlla malakum amulen من min ilaahin ci غيره بدل budul أفلا تتقون خنا xanaa du ngeen daal di wax almalaw mbooloo ma alladina gaa yi nga xam ne kafaru ñoom dañoo weddi yàlla min qawmihi ci ay ñitam maa haasa déet illa basharun ndare boo muy mbindeef mislukum kem yéen yuri dafa bëgg rek an yatafaddala ba mu gën gën lu aleykum seen kaw walaw sha allah bu sooboon yàlla la anzala kon mu wàccee malaayka tan malaayka boo xam ne daf koy yónni waa ñun maa sami'naa mosuñoo dégg bi haasa ci lii nuux di woote fii suñu baaya al awwalina yu njëkk ya de in huwa déet nuux illa rajulun ndare boo waay boo xam ne rek bii nekk na ci moom jinnatun ay jinne kon fa tarabbasu mu ñandiku leen rek bii ci moom xataa hiinin ba ab diir balaa moo dee qaala nuux ne rabbi yow sama borom unsur nii yàlla ma dimbale bi maa kazzabuun ci la nga xam ne wedd nañ ma ko de faa waxay naa ñu wax yu ilayhi jëm ci noo an ci ne hee is naa ay liggéeyal alfulka gaal bi ayuninaa ci suñu gis wax yu naa ak suñu wax yu fa isa jaa ndem dikk na amru naa suñu mbir ñu waleen xalak wa faara daadi di eh, eh, bal eh, ndox ak tanuuru puur ya <coughs> boo gisee loolu rek xama ne alaama bi ñëw na xam na léegi ma alak leen wa faara tanuur pour kay luñ ci xam mooy safara pour tanuur mooy fi ñu lakkee mburu léegi ñu jëkki-jëkki rek muy ball ndox di tuur mu ne boo gisee boo commencé gis loolu rek xamal ne tey yow demal dugg ca gaal gi xamal ne léegi tey ma ne suuf gë gëqal li nga am asamaan wàcce li nga am ndox mi dajee moo rak ñëpp. Hmm? wa farat sa nuur léegi nag yow boo gisee li fasluk na nga soobu fiyaa ca gaal ga de min kulli zawjayni mu ne ah, ci bépp mm, bépp lépp lu nekk nga jël si zawjaan yi mooy ñaar góor jigéen fasluk na nga soob fiyaa ci gaal ga min kulin ci lépp mooy bépp xeet zawjaan yi góor jigéen hmm? isneen yi ñaar waaw waaw bu ne waa halaka eh, eh, dégg nga maam ñëpp xalaku nañ waa halaka xalaku na jabaram ja ak doom ja ko bañaloon hmm? xam nga lu mu lay jàngal bàyyi baax taxul doom baax de hmm? waaye nit ku baax tekkul ne boo baaxee lu tax ci yow baax mënul ne de yontu yàlla noo de ku baax la jabaram da koo widdi xalaku na doom da koo widdi xalaku na ñun nag dañoo gëmloo ne euh, tabaarakallaahu ku sa baay baax dangaa war a baax far force ñun force lañ ko def force sama baay sëriñ la baay dee na yow far force nga nekk sëriñ Hmm? so ma so mam serigne la mam deena fa fa serigne lolou dara yonti yalla no xana ken gën ko nek serigne dom ji da ko wedd yalla halak hmm? ki man ta bon wa ki même bu min da ngoy deg ngoy deg ñu ne ki nanam sangaram gi affaire la wa dafa am lu mi neub rek neub tous xana ak mbon dara na bug ndax ma wal yu la man ta bon man ta nangam may baña mëna bon ki bayam yonenti la xana yoy yonenti gëna for ki Hmm, loolu loolu ay caaxaan rek la dégg nga ko euh, doomi wali yoog bàyyi wali yoog maam wali yoog lépp a yem boo sooloo mbaax baax boo sooloo mbaax nga bon comme ñëpp yéem ak naan ka di sàngara yi hmm? rek koo xam ne xamuñu bàyyam ci dara dégguñu bàyyam ci dara wala bàyyam a gën a yées ñëpp waaye moom mu ñëw góorgóor lu baax ba gën ñëpp ba gën doom ba gën doomi sëriñ ba gën doomi ñëpp kon mbaax ci loxo yàlla ne mbax nekul ci sama baye serigne la mbax nekul sama mam serigne la dedet wa halaka illa man sabaqa alayhi alqawl ndare bo ñinga xamne xam la ci alqawl wax minum ci ñom loolu tek min kulli zawjin isnayni من كل من كل زين isnayni maam lu soob wa ahlaka Euh, fasluk fiha min ku min ku zajas na ni maanaam wa ahlaka ak sa waa kër dégg nga say waa kër la say waa kër mooy say ñooñ dugal leen ci illa man sabaqa li qawlu mooy jabar ja ak doom ja hmm? jabar ja ak doom ja loolu ñooñu illa man sabaqa li qawlu mooy sa waa kër yëpp dugal leen ndare boo nag ñi nga xam ne ñoom dañ laa weddi mooy sa doom ji la weddi ak sa jabar ji la weddi euh, ñoom de wax jiit na ci ñoom dañoo war a xalaku ñu ñoom bokkuñ ci hmm? fasluk fiyaa min kulli zawjin ni waaye wa ahlaka gis gis nga ko dugalal ci gaal gi eh, ci lépp loo gis ñaar min kulli zawjayni eh, wa ahlaka illa man sabaqa al qawlu minhum ñoo ñoom duñ dugg de léegi nag yow boo duggee ci gaal gi wala tuxaatib nii bul bul man de fi ladina ci gaa yi nga xam ne wala mu dañoo tooñ ci weddi la Hmm? yalla suma jabar ji yalla suma dom ji yalla nako he hmm bul ak man ci loolu innahum ñom comme lañ laa weddi mughraquna fa ñuy lab dañuy dee comme ñëpp hmm? ndeysaan ba ñu njural japp ko yalla mu ne yalla innahu min ahli yalla dimbale ma suma dom la yalla ne ko laysa min ahli eh bokul sa dom te xoolal nag attention wala tuxaatibni fi lladina ah. zalamu <laughs> cettt innahum muxlaqun loolu la ko yàlla wax hmm? gis nga ko kon doonte doom ji nga jur waaye bu bokkul pas-pas rek parce que bokku leen dara waaye kile bokku leen dara waaye yéen a bokk pas-pasu laa ilaha illallah yéen a bokk lépp hmm? fa isa stawayta ndem yéeg nga ci kaw ba ah, ba toog bu baax anta yow wa maaka ak ñi ànd ak yow alal fulki ca gaal ga foqul waxal alhamdulillah ñu ngi sant yàlla alladi yàlla mi nga xam ne na najjaana moo ñu musal min al qawmi zalimin ñu bokk ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ yàlla mi ñu musal ba bokkuñ ci tooñkat yi ñun ñu ngi koy sant bu baax mu ne waxal loolu fa ida stawayta anta wa man maak mu ne boo demee ba yëg ci kaw gaal ga ba toog toogaay bu jekk nga yëg ne yaa ngi ci kaw gaal gi mu ne santal yàlla wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne yàlla ma musal ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ waqul waxal ne rabbi yow sama borom anzil nii yàlla ma wàccee mun munzalan wàccuwaay boo xam ne mubarakan bu ñu barkee lay doon wante yow yàlla xayrul munzilin yaa ngeen ci wàccuwaay yaa ngeen ci mu eh, ñi wàccee nit fu baax yaa ci gën hmm? la wax aaya boobu boo ko bindee cent quatorze nga def ko ci doomu xaal opéré xaaw def ko kër goo ko def kër ga du dellu ginnaaw mukk waaw kër ga du dellu ginnaaw du ñàkk dépasse hmm? kër ga day naat rek di dem jàmm rek la euh, ci doomu xaal nga koy def hmm? étage rek waaw <laughs> dina bari étage dina bari teraanga dina nekk kërub daluwaay hmm? jàmm rek fa yam bu soobee yàlla dégg ko rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin 114 waaw te kër gogo du wet de mhm. taalibe nag bugul kër gu wét go ker ker kër kër kër gi arrangé wu ko mhm. kon bind len denc kenn ko ne bo demee bu bëgg na jé kër ga nga bind sul ci digg kër ga bayiko ko nga ñu bi nga fekk kër ga jekk lool fekk fekk barke ñëw na fekk lépp ñëw na mhm. inna inna fi zalika nekk na ci loolu la ayatin ay waar mhm. yoo xam ne dalay tegtale ne yàlla ko am kàttan la wa in lii kun naa nekkoon na ñun la mubtaliina di waay nattu leen suma ansha naa topp nag bind nañ leen min baax seen gannaaw xarnan ay nit aaxar na ñeneen de fa arsalnaa yónni nañ fiim ci ñoom rasulan ay yonenti ci ñoom am ci ne laa jaamu leen yàlla maalakum amu leen min ilaahin ci yàlla xayruhu wudul yàlla de afalaa tattaquun xanaa du ngeen yàlla bëggëm wa qaala daal di wax almalaw mbooloo ma min qawmi ci a alladina gaay nga xam ne kafaru weddi nañ wa da ñu weddi bi liqaayil aaxira ci daje yawmal qiyaam moy ñoom dañoo dañoo wéeru yamul qiyam de wa atrafnaahum ñu xontu leen rek nak fil hayat dunya ci dunu aduna bi ñi wax naan ma haza déet ki dal illa basharun ndare boo kam mbindeef mislakum kem yéen yaakulu day lek mimma taakulun ci la ngeen di lek minu ci mom wa yashrabu muy naan mimma tashrabun ci la ngeen di naan minhu wala in ataatum wallahi bu ngeen toppee basharan bindef mislakum kom yéen innakum naka izan kon bu ngeen ko topé la khasiruna way perte ngeen moo tax mbon yàgg na fi de hmm? cet ab yoonu di lañu wax li de ki nit nit rek la comme yéen ngeen top ko ni de geur geuri rek ah waye xam leen yeen ñepp perte mota tax yéeféeru ba léegi ñu ñoo fi ne waye ñu ñu baax njëkk ñi ba ñoo ne tay da ngay gis ben nit nitu yalla commencé wolte yeen bu set yoon bu mbaax li ñu topp ko ci ña ko toppul la ñuy wax lii kii daa mel ni ab yàlla la ci yéen ngeen topp ko di gër-gër di ñàkk fu la ba dee nanga ak nangam waaye da xam seen kër yi dina tas de seen nangam ak nangam lu ne ñu yekk la ko wax la ko waaye ab yéeféer waxoon na ko yonti yàlla non waxoon na ko yonti yàlla wax waxoon nañ ko Seydina Muhammad waxoon nañ ko waxoon nañ ko bam bam jeex kon yooyu il faut wax la ko hmm? ayaayidukum <coughs> mu ndax yéen dañ leen a dexal ne na annakum naka yéen <coughs> ay aydukum mu ndax moom daf leen di dexal moom yonent ba ne na annakum naka yéen tum dem dee ngeen wa kuntum ngeen nekk turaaban di suuf wa isaaman ak yax na annakum naka yéen muxrijun waaye génn ngeen ndax yonent bi moom daf daf leen di dexal ne yéen bu ngeen dee ba nekk ay yàq da di dekkiwaat ndax loolu mën na nekk yëf yëf yëf daf yooyu ndeysaan loolu ñuy wax ñi ñi topp yonent xam ngeen ne ci lu leen di woo ay caaxaan rek la bu ngeen dee deen dekkiwaat xay xaata sori na xay xaata sori na li ma tuwaaduun la def na defal leen ko in hiya dee dund bi illaa xayaatuna dunya ndare bo dund àdduna namuutu ñuy dee rek eh, eh, wana xayaa ñuy dund teet teet ne dund daal amut maam dund dund bi rek moo fi ne dund àdduna ñuy dee mooy su sunu sunu bàyyi dee nañ yaa ñu ñu dund moo ñun ñu ngi dund te ñun tam buñ dee sunu doom yi dund rek ñu ne kon loolu rek moo ne wa maa nahnu déet ñun mebon si ñuy dekkal in huwa déet yonent bi illa rajulun ndare boo waajoo xam ne iftara fent na alallaay ci yàlla kasiban ay fen wa maa nahnu wa maa nahnu déet ñun bi muminina ñu de waay gëm lawu ñel ko xaala yonti ba ne rab yow sama borom unsur nii dimbale ma bi maa kazzabuuni ca la weddi nañ ma ko xaala mu ne ko ama qalilin ci lu néew la yusbihunna dinañu mujj naadimina di way rëccu fa axadathum daal di jàpp leen asayaatu xaatu jibril bil xaq ci dëgg fa jaalnaahum ñu def leen gusaan ñu mel ni ay mbubit fa boo den ma yërmande lil qawmi waalimin ñeel ñi nga xam ne ay tooñkat lañ suma ansha naa topp sos nañ nag mooy bind nañ min baadihim seen gannaaw qurunan ay nit aaxar na ñeneen maa tasbiqu du jiitu min ummatin ci xeet ajalaha digam wa maa yastaaxirun te dem du yéex walis ko mukk su marshal naa topp nag yónni nañ rus naa suñu ñu de waay toftaloo kullama jaa saa wu dikkee ummatun aw xeet rasuluha ab yonenteem kazzabuuhu ñu weddi faat baax naa ñu tofal baadahum seen leen lenn baadan ci leen ci alkande wa jaalnaahum ñu def leen ahadisa ay waxtaan fa buudan sori yërmande li qawmin ñeneen ñoo xam ne lay yu'minu ñoom gëmuñ yàlla su marsalna topp yónni nañ Moussa Moussa wa axaaw ak mbokkam ma Haruna bi ayatina suñu aaya wa sultaanin ak i lay mubiin yu bir ila firawna jëm ci firawna wa mala'i ak mbooloom ma fastakbaru ñu réeréelu wa kaanu nekkoon nañ xaw ma nit ñoo xam ne aaliina ñu not lañ fa qaalu ñu ne anu minu mu ndax ñun dañuy gëm li basharay ni ñeel ñaari mbindeef mislina kem ñun te wa qawmuhuma sax nag ñoom seen sax nag na waaye topp lañ lanaa ñeel ñu fa kazabuhuma ñu weddi Muusa ak Haaruna fa kaanu nekkoon nañ indal muhlakiina bokk ci ñi nga xam ne dañoo xalaku ñoom ñi leen weddi woon wala xad aateenaa dëgg-dëgg dikko woon naa Muusa Muusa alkitaaba téere ba laallahum ndax ay nitam yaxtaduun ñu gindeeku waaw jaal na defoon na ibna mariam doo mariam di isa wa ummuhu ak yaayam ayatan ñuy kawteef wa ma ñu tàpp leen ila rabwatin jëm ci barab bu yëkkatiku ñu ne mooy baytul maqdis ñu ne mooy dimishqa ñu ne mooy Palestine ay wax yu bari ñoo si am zaati qaraarin fay borom saxuwaay moo foo xam ne fu nit mën a dëkk la wa ma ay nin ak i sewnde yaa ayyuha rusulu ay yéen yonent yi kulu lekk leen ne tayibaati ci yu wa amalu na ngeen jëf saalihan lu baax ini naka man nag alimun aji xam laa bi ma taamaluun ci loo xam ne yéen a koy def inna hadihi naka diine ji di islaam ummatukum mooy seen diine mooy seen yoon ummatan wahida benn yoon rek la benn diine rek la wa ana man nag rabbukum maa seen borom fattaquuni na ngeen ma ragal fataqattau daal di daggante amrahum seen mbir diine baynoom seen diggante zuburan ci ay kuréel kullun euh, kenn ku nekk kullu xisbin kuréel bu nekk bi maa ladayhim ca diina jëm nekk moom farihuuna moom falay bég falay kontaan ñi nekk ay chrétien ñi nekk ay yahud ñi nekk ñi nekk leneen kenn ku nekk fa nga nekk loolee ngay bégal loole ngay yëkkati mooy kullu xisbin bi maa ladayhim farihuun bu ne fasaruhum bàyyi leen rek fii xamratihim ca seen ndox ga xataa hiinin baab diir ayaxsabuuna mu ñoom dañu ñortu anama nu middu annama nu midduhum la nga xamne ñun jox nañu ko bihi ci mom min malin ci alal wa bañu akki dom doom nu saariu ndax ñun dañu gawal rek lawum ñeelum fil khairat ci yiw dañu foog ne rek moy yiw moy mooy ak mbax dom yi walen jox ak alal ja ba li fi nek ñom la yashaaruuna yëguñ sax li xaw innal alladina naka gaay nga xamne hum ñom mushfiquna waaye ragal lañ min khashyati rabbihim ci ragal seeni borom walladina gaa yi nga xam ne hum ñoom yuminuuna waaye gëm lañ bi ayaati rabbihim ci ayaay seeni borom te muy alquran walladina gaa yi nga xam ne hum ñoom laa yushrikuuna du ñu bokkaale bi rabbihim ci seeni borom walladina gaa yi nga xam ne yutuuna dañuy joxe maa ataw la jox nañ leen ko ñoo xam ne lépp luñ leen jox ci alal ñoom tamit dañ ciy joxe te wa quluubum seen xol ya wajila aji jàq la annahum naka ñoom daal raajiuuna waa dellu lañ ilaa rabbihim jëm seen borom ulaayka ñoo ligaadee yusaariuuna ñu ngay njëkkalante fil xayraati ci yiw te waxum ñoom saabiquuna waa jiitu lañ laxaa ñeel yiw boobu wala nukallifu duñu togg mukk nag nafsan bakkan illaa wusaaha ndare boo kéem lam kàttan <coughs> yàlla daal du la teg mukk loo xam ne mënoo ko bu la nee wooral nga dem ba ci biir koor ga ngalankoor am yaa mën a bàyyil kon ko koor gi yow tegatuma la ko mm-hmm. kon koor gi kan la ko teg ki wér mm-hmm. te amul amul benn gàllankoor mm-hmm. kooku la teg koor ga waaye ki te am gàllankoor kooku moom bokkul ca koor ga gis ko walla day na nekk na ci ñun kitaabun téere boo xam ne yanti yantiqu day tudd bil xaq ci dëgg waxum ñoom laa yuslamuuna defu leen tooñ de bal fi nekk qulubuhum seen xol ya fii xamratin mu ngi ci ak min haada ci alquran ji wala hum ñee na leen nag amaalu ay jëf min duuni zalika yu bokkut ak yooyu de hum ñoom daal na waa jëf lañ ko laa ñeel ko de jëf yooyu defoon nañ ko de te yàlla da leen bugal de te jëf yooja xataa isa xas naa buñ jàppee mutrafihim seen borom alal bila bil azaabi ci mbugal isa hum ci mbetteel ñoom ye yej aruna ñu ngay daw di wéeru ji ci ñun ñu naan leen laal taj aru bu leen wéeru alyawma tey de innakum naka yéen laa tunsaruun def leen dimbale de min naa ci ñun ndax xar kaana nekkoon na aayaati suma alquran ji tut laa def ko jàngat aleykum ci yéen fa kuntum nekkoon ngeen tan ki suuna di dellu ginnaaw tan ki suuna di dellu ala aqaawikum seen ginnaaw ya mooy fuñ da ñoom buñ doon dox di ñëw ñu dégg nga jàng alquran dañuy arrière daw mustakbirina ñu de waay bii ci moom de saamiran mbir moomu ñu dee waay ngombalaan mooy ñu ñu koy waxtaanee guddi mooy bu guddee ñu toog di ko waxtaanee di di retaan tahjuruuna ñuy gaddaay alquran afalam yaddabaru xanaa ñoom setantaluñ alqawla alquran am jaahum wala boog ñoom daf leen a dikkee maalam yaati loo xam ne dikke dikke wutoon abaawum seen baaya al awali ñu dawaa jiitu am lam yaarifu wala ñoom xamuñ woon rasulahum seen yonti ba foofu ñoom daal munkiruuna waaye weddi lañ law ko am yaquluuna wala lañuy wax ne bii nekk na ci moom jinnatun ay jinne ba li fi nekk kay jaahum dikkal na leen bil xaqi ci dëgg de alquran daal indi na leen dëgg de wa aksaruhum lëf ci ñoom nag kaarihuuna waaye wi lañ lil xaqi ñeel dëgg wala ittabaa bu toppoon alxaqu alquran ahwaahum seen bànneex ba bu fekkoon alquran ñoom seen bànneex ba rek lay topp la fasadati kon yàqu de asmaawaatu asamaanu juróom-ñaar wal ardu ak suufu juróom-ñaar wa man fiihinna ak lépp loo xam ne nekk na fa de bali fi nekk kay aataynaahum daf leen dikkee rek bi zikrihim sira alquran ja de fahum ñoom nag mooliduuna waaye du mooyu lañ an zikrihim wali sira alquran ja <coughs> am tasaluhum wala sax da leen di laaj <coughs> xarjan ak pay ci ci li nga xam ne da nga ko indi yow alquran mu ne fa xaraaju rabbika paygu sa borom de xayrul moo gën te waxuwa loolu xayru raziqin waxuwa yàlla xayru raziqin mooy gën ci kuy joxe wërsëg wa wa wa wa innaka naka yow lan la tad'uuhum da nga leen xoo ila siraatin jëme leen ci yoon mustaqimin wu jub kocc wa inna alladina naka gaay na gaay yi nga xam ne nag laa yuminuuna gëmuñ bil axira ci àlaxira ñoom la naakibuuna